الحمد لله كثيرا والله اكبر كبيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اله الا الله الولي الحميد الله اكبر ما صام الصائمون وافطر الله اكبر كلما لاح صباه العيد واصفر الله اكبر ما هلل المسلم وكبر والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العباد ويسر له الحمد على نعم التي لا تعد ولا تحصى وله الفضل على احسانه وحقق له ان يشكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من صلى وصام وتهجد واجود من انفق وتصدق صلى الله عليه وصحبه وسلم اما بعد عباد الله فان يومكم هذا يوم شريف فضله جل وعلا فضله جل وعلا وشرفه وجعله عيدا سعيدا لاهل طاعته يفرح به المؤمنين لأن الله وفقهم لإكمال الصيام وآنهم على عبادته والقيام والتلاوة القرآن في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها المؤمنون اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi seede ne buur bi tabaraka wa taala moom dong mooyeyoo jaamu amul kenn ku ñuy jaamu jaamu gi nekk njëriñ ñàkk gee jaamu nekk lor ku dul sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noo ngi seede ne moom sunu boroom boobu moo yombalal jaamam ñi yoonu jaamu moo leen ko yëwénal ñoo ngi seede ne moom borom boobu moo sëmbërtal sunuy kaw ay xéewal yoo xam ne kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim moom yàlla tabaraka wa taala ay ngëneelam bëri na ci ñun moom borom bi moo yayoo ñu sant ko bàkk ko kañ ko ñoo ngi seede ne muhammadun alayhi salaatu wassalaam jaamam la moo gën képp ku taxaw julli moom yonent bi moo gën képp ku masa woor naafila moom yonent bi moo gën a tabe képp koo xam ne ci weer wi da nga doon génne ci sa ñaq di joxe di génne ci sa poos di saraxe ginnaaw loolu mbokk yi tabaraka wa taala bëccëgab tey bi bés bu màgg la ci borom bi tabaraka wa taala bésu ngëneel la bésu xéewal la moom sunu borom subhanahu wa taala moo ko def muy sunu feet waaye ana ñan la ko defal feet mooy ñi ko doon topp ñi doon xiif ngir moom ñi doon mar ngir moom ñi doon rukkoo ak a sujoot ngir moom ñi doon jàng alquran ñi seen làmm ñi doon tooy di ko tudd moom borom bi tabaraka wa taala ñooñu tey ci bëccëgu tey bi ñoom la yàlla di tiitaroo ñoom la yàlla di ndamoo ñoom la ko yàlla may feet ñoom ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla defal feet bëccëgu tey bi ñu war a bég ñoom ñooñu yafrahu almu'minuun li anna allaha waffaqahum li ikmali siyam wa aanahum ala alibadati walqiyam wa tilawati alquran fi chahri ramadan ñooñu ñooy ñi war a kontaan tey ñooy ñi war a zibile ñooy ñi war a békk ñooy ñi war a fëgg seen dënn lu tax sunu borom subhanahu wa taala moo leen dëppale ñu doon woor borom bi dimbali leen ñu ko doon jaamu borom bi jàppale leen ñu doon taxaw borom bi jàppale leen ñu doon jàng alquran ci weeru koor gi borom bi mu ne wali tukmilul idda wali tukabbirullah ala ma hadakum wa laallakum tashkurun mbokk yi ci yàlla nanu ragal yàlla tabaraka wa taala ci lu feeñ ak lu nëbb nañu mooy tandikul ay bakkaar la ca feeñ ak la nëbbu ittaqullaha fi sirri wal alan wajtanibul fawaisa ma zahara minha wa ma batan na ngeen yëg ne waalamu anna al yawma amal wa xisaab wa gadan xisaabun wala amal nañu yëg ne tey fii ñu nekk ci àdduna bëccëg yi ñu boole ak ay guddeem bésu jëf la kenn du réglé bésu liggéey la kenn du atte bésu liggéey la kenn du fay nañu xam ne ëllëg ca kanam bu borom tabaraka wa taala ca yawmal qiyaam bésub fay la amul liggéey moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam yawmal qiyaam bu nit ñi sonnee ba ñu song ko ne ko demal nga ñaanal ñu yàlla taxawaay bi metti na jant baa ñuy lakk mu ne xaar leen ma ñëw ba gaa yi sonnee ci ku ñu njëkk a dem ci nuux mu ne munuma ci dara ñu dem ci ibrahim mu ne munuma ci dara ñu dem ci is muusa mu ne munu munuma ci dara ñu ñëw ci isa mu ne munuma ci dara ñu ne daw leen dem ci muhammad mu ne ana laha ana laha ana laha maa ko yelloo maa ko moom gaa ñi ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla mu àtte ñu rek la ñu yëf yi jeex mu ne xaar leen ma ñëw moo tax ku yëpp muhammad rek léegi la mu waaxu jëm ci borom bi bi mu ñëwee lu mu def dafa sujjoot ci kanam borom bi tabaraka wa taala yàlla ne ko déedéet irfa raasaka yëkkatil sa bopp tey sujjoot amatul tey kenn dootul jaamu yàlla irfa raasaka wasal tu'ta wasfa tusaffa yëkkatil sa bopp irfa raasak yëkkatil sa bopp yow sayduna muhammad wasal tu'ta laajal yàlla jox la te yàlla nee na ëllëg dina ko jox wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda danaa la jox ba nga doyal kon lan moo tax tey réew mi ñu alku ba ba ñu topp Seydina Muhammad waa mbokk yi ndax da lu ñu waa ñu laaj waa réew mi lan la ñu gis lu gën a màgg Seydina Muhammad koo xam ne yàlla moo ko ne ëllëg dinaa la jox wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda bul ko weddi de alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna bal sax yàlla raw na ci moom lu wax lu wax joo xam ne kenn mus ko wax mbindeef alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladi anqada zahrak wa rafana laka dikrak yow kenn sa tur laa yëkkati ba adduna bi sa tur bi moo gën a siiw tur yëpp suñuy nodd foog ñu nodd ci turu Seydina Muhammad bu ñuy iqaam foog ñu iqaam ci turu Muhammad bu ñuy taaya foog ñu taaya ci turu Muhammad bu ñuy duggee biir bàmmeel foog ñu laaj ñu kan mooy Muhammad loolu amul kenn de moom dong lañ lay laaj biir bàmmeel soo ko xamee ñu teral la soo ko xamul ñu duma la amma almumin ida wudia fi qabri wa tawalla an wa asaab ataahu malakayn fa yaqulaani lah maada kunta taqulu ala hada alabdu muhammada loo doon wax ci jaam bi muhammad moom dong la ñuy laaj yowm alqiyaama keneen ku dul moom kenn du fa laaj kenn kon kii jar naa xam moom muhammad alayhi salaatu wassalaam moo ñuy wax ne adduna kërug liggéey la yàlla daf ñu fee indi pour ñu liggéey kenn du fi fay nag da ngay liggéey rek fan la ñuy faye borom bi nee na alaxira lañ leen di faye ad dunya daaru amal wal axira daaru sawaab fii ci adduna mbokk yi kërug liggéey la loola tax su yàlla santaanee bul xaar kenn su yonent bi diglee bul xaar ndax mbokk yi bu dee ñëwee du la xaar nanu ragal yàlla borom bi nee na képp ku jëf lu tol ne zarra ci lu baax ëllëg yowmal xiyaam di nga ko gis waaye képp ku gis sa képp ku def safaan bu tol noonu di nga ko gis mbokki julit yi balaa weeru koor ñëw ñun ñëpp dañ doon wax ne weer waa nga nele des na deux mois nu woor du loolu lañ doon wax ñu jekki-jekki ñu ne des na ñaata des na weer ñu jekki-jekki ñu ne des na ñaata benn fan ñu jekki-jekki ñu ne des na ñaata ñu ne suba la ñuy woor ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba tey fu ñu toll ñu ne jeex na mbokk yi jeex na tey ñun ñu doon woor tey ku nekk fii nga toog ci jàkka ji lan nga sentir est-ce que dafa mel ne mës ngaa woor wala mosoo woor noonu nag la jaamu yàlla mel jaamu yàlla su la ko yàlla sante góor góorlul ndax yàgg yàgg yàgg jaamu gi day jeex léegi nag mu des tiyaaba yi xoolal ki woorul woon léegi bu xëyee tey dee dajeeg boromam yow mi xëyoon woor dajeeg sa borom borom bi nee na ku ci jëfoon lu tol ne pepp zarra ci yiw dinaa ko fay ku ci defoon lu tol ne pepp zarra dinaa ko fay allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah والله اكبر ولله الحمد ايها المسلمون افرحوا هذا اليوم وحق لكم ان تفرحوا ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرح بها للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه سنو يونس عليه الصلاه والسلام نينا tey jullit yépp a war a kontaan waaye mbokk yi lu yay la ci ñoom ñu kontaan tey ñépp a war a bég waaye lu yay ci yow la nga war a bég lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku woor ba dog dina am ñaari kontaante li saaimi farahataan ku woor di nga am ñaari mbégte ñu ne bu njëkk bi mu ne farhatun inda fitru di nga kontaan soo dogee tey ñépp dog nañ ñépp bég nañ mu ne wa farahatun inda liqaai rabbi bis boo dajeeg sa borom keroog ngay gën a kontaan yal nañu yàlla boole ci ñooñu farihina alyawm bima waffaqana allahu min ikmali siyaami sahr tey kontaan nañ ñun ñëpp ndax yàlla moo nu may ñu tàmbali benn ba ñu egg tey ci ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla may nu ko dimbali nu feebaruñu amuñu benn ngant yàlla jàppale ñu ba ñu woor weer wi mu ne wa gadan nafrah al farah al akbar bi ridwani rahman nee na suba nag mooy kontante gu mag gi suba mbokk yi moom mooy mbégte gu mag gu rëy gi ban la indama nadxul min baabi rayyan alladi la yadxulu minhu illa saimun almuminun tey ñun ñëpp bég nañ ndax dog nañ waaye mbégte gu mag gi ñëwagul kañ la buñ duggee bàmmeel ba yàlla woonu nu dekk ñun ñëpp ñu raa taxaw ñu jékki-jékki dégg ci ardul mahshara ci mbooloo moomu wër nu malaaka yi wër nu jinne yi wër nu ñu jékki-jékki dégg benn kàddu naan ayna saimun ana ñi doon woor ana ñi doon woor ñi doon xiif ngir yàlla ñi doon mar ngir yàlla ñu daal di jóg taxaw borom bi tabaraka wa taala daal di ubbi benn bunt bu tudd rayaan mu ne dugg leen suñu duggee ba pare mu tëj ko keneen dootu fa jaar kudul ñooñu عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه سائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره غيرهم يقال أين سائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بقي بندمي بيوم القيامة yonent bi moo ñuy nettali ci hadisu sahl mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na am na benn bunt ci buntu aljanna yi bu tudd rayyaan mu ne ñi wooroon dong ñoo fay jaar bisub yowmal qiyaam nee na kenn ku dul ñoom du fa jaar nee na borom bi yonent bi nee na dañ naan ana ñi doon woor mu ne ñi doon woor ne bërët daal di jóg taxaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla ne leen jaar leen ci yoon wii ñu daal di fay jaar ba dugg ba jeex yonent bi nee na ñu ne buntu ba ràpp tëj mu ne keneen du fa dugg ku dul ñoom ibadallah mbokk yi ci yàlla ayyuhal mu'minuun mbokki julit yi loolu kontante la rek boo xam ne kontante bu ndaw la ibadallah mbokk yi isna ayaman maadudat dund nañ ay fan yu néew ay fan yu ñu lim wala yaalil mubaraka dund nañ ay bëccëg yu am barke nafrax danañ bég mbégte googu ñu bég dugg aljanna mbégte bu tuuti la danañ bég mbokk yi mbég bu ko raw nafrax indama yaqulu tabaraka wa taala li ahli aljanna fi aljanna ya ahla aljanna فيقولون ربيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رجيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك فيقول ألا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أهل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا danañ bëgg mbokk yi kañ dugg àjjana rek sax doy na mbëgg waaye yàlla daa bëgg waa aljanna gën a kontaan moo tax dana jàkkaarloog moom moom borom bi dana jàkkaarloog waa aljanna mu ne waaw yéen waa aljanna loolu rek doy na xoolal yàlla di wax ak waa aljanna mbokk yi ndax loolu doyul ngay dégg kaddu borom bi Moussa keroog ba muy wax ak yàlla kaddu gi neex mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla ne ko lan taraani munoo ma gis mu ne yàlla foog ma gis la mu insisté yàlla ne ko Moussa munoo ma gis mu ne yàlla yow rek laa bëgg a gis borom bi bi mu gisee Moussa insisté insisté mu ne ko kon nag unzur ilal jabali in istaqarra makanahu sawfa taraani xoolal montagne bi su montagne bi riposté su fekkee montagne bi mën na maa dékku kon yow yow Moussa di nga ma mën a dékku moo tax ñi naan dañoo gis yàlla dañoo réer rek Moussa ulul azmi min ar-rusul Moussa kalimullah Moussa ma nga ca aljanna yu kawe ya keroog Seydina Muhammad bi mu demee laylatul isra wal mi'raj fa la fekk Moussa asamaanu sixième yonent bi di va et vient Moussa nan ko demal yàlla na la wàññil Moussa yonent bi di dem di ñëwaat kooku mënta gis yàlla benn waay bu nekk Sénégal lekk dëxin ba suur yeewu ne gis naa yàlla. ndax loolu xel nangu na ko mbokk julit yi waxuma la sax mu yeewu ne gis naa yàlla waaye mu ne léegi man yàlla laa allahu akbar man yàlla laa. yàlla na Moussa xoolal montagne bi su montagne bi riposté. di nga ma teg bët fa lamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakka wa xarra Musa saiqa bi yàlla feeñoo montagne bi da yàlla dafa du jëmmam yëpp de feeñu mi ngi mel ne ku ubbi rideau fenêtre rek daal ne nii sa loxo am koo doon nuyu rek ne ko nii dugalaat loolu la yàlla def montagne bi montagne bi daal di exploser daal di këpp ci suuf daal di tasaaroo Moussa ne cëpp daanu fële daal di xëm allahu akbar Moussa bi mu ximmili ko lu mu wax yàlla yàlla baal ma tuub naa dootuma ko defati kon ñi naan ñoom gis nañ yàlla lu leen tëree tuub ñi naan ñoom ay yàlla lañ lu leen tëree tuub mbokk yi waa aljanna ñoom buñ duggee aljanna yàlla moo naan yaa ahla aljanna ee yéen waa aljanna fa yaquluuna labbayka rabbana wa saadayk ñoom ñëpp ñu jóg taxaw ne ko yow sunu boroom wuyu nañ la yow sunu boroom wuyu nañ la yaay ki ñu may texe kenn mënta texeel kenn ku dul yow wal xayru kulluhu fi yadayk yow yàlla lépp lu yiw ci sa loxo la nekk yow yàlla bu ñu nekkee àdduna jaamu dugg ci bàmmeel nga musal nu ñu dekki nga rëccal ñu siraat tey nga dugal ñu aljanna yow yàlla yiw yëpp adduna ak alaxira sa loxo la nekk wal xayru kulluhu fi yadayk ku baax yaa ko baaxal lu baax sa yërmande nga fa sotti yow yàlla yow yàlla loo ñu bëggal mu ne fa yaqulu xal radaytum ndax kontaan ngeen ndax kontaan ngeen yéen waa aljanna fa yaquluna wa ma lana la narda ya rab wa qad aataytana ma lam tu'ti ahadan min xalqik waaw yow yàlla ñun lu ñu tere kontaan tey ñoo ngi ni aljanna ñoo ngi sunuy lal sunuy soxnaak ñu wër ñoo ngi dem di ñëwaat malaaka yaa ngi ñu ne salaamun qawlan min rabbi rahim salaaman salaaman ñoo ngi ni toog tey yàlla mu ne am na lu des de am na lu des yow yàlla ñun kontaan nañ jox nga ñu loo xam ne musoo koo jox kenn fa yaqulu ala utikum afdala min zalik lali aljanna li muy neex neex urul ay nii lu ñuy rafet rafet firwi yi lu muy neex dex yi mbedd yi kër yi lu muy taaru taaru taaru yàlla nee na am na lu ko gën a neex allahu akbar moo tax mbokk yi ñun xamuñu li na am de xamuñu ko sunu borom ne danaa leen jox lu ko gën a neex gaa yi ne ko wa ayu shayin afdal min zalik yow yàlla lan moo gën a neex dugal janna loolu amatul lu ko gën a neex lu ko gën sunu borom jalla jalaaluhu mu ne fa yaqulu uhilla alaykum ridwani tey dinaa leen wàcceel sama kontante tey dinaa leen wàcceel sama yërmande waaye waxuma dara sax rido bi doxoon sama digganteeg yéen ba du ngeen ma gis tey dinaa ko muri ngeen jàkkaarloog man wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha nazira ndax lu am na lu gën a rëy loolu mbokk yi ndax nit mën na gis mën na am lu gën a rëy gis yàlla mbokk yi ndax loolu jarul xiif ndax loolu jarul mar ndax loolu jarul ruko ndax loolu jarul sujjoot ba dee dajeeg yàlla mu ne la kontaan naa ci yow danaa sotti ci yow sama yërmande dinaa la may lu ma mayul kenn xoola la Moussa amul woon keroog waa aljanna danañ ko am yàlla dina muri rido bi ñëpp jàkkaarloog moom sayduna muhammad mu ne innakum sa tarawna rabbakum yéen a ngi nii da ngeen jàkkaarloog seen borom comme ni ngeen jàkkaarloog weer wi di ko xool amul lenn lu jaar seen digganteeg moom loolu lan moo tax ñu am ko mooy yàlla kontaan ci ñun loolu doyul mu ne fala asxatu alaykum baadahu abad dootuma leen mere mukk allahu akbar dootuma leen mere mukk loolu doy na wala doyul mbokk yi wallahi loolu doy na buñ la ne woon sujootal fii ba dee sax loolu jar na ko suñ la ne woon yendul fii ba dee jar na ko suñ la ne woon bàyyi lekk waaye nag mbokk julit yi ñun waa réew mi xamuñu lii moo tax wa xaqun lana an nafrah war na noo bég qul bi fadlillahi wa rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun borom bi nee na xéewalu yàlla am xéewalu yàlla am yërmande yàlla waaye ku bëgg a bég bégal ci ñaar yi fexeel ba yàlla kontaan ci yow fexeel ba nga am yërmande yàlla yàlla nee na loolu moo gën mimma yajmauna li ngeen di daw di dajale kër yi ñuy tabax soxna yi ñuy takk waruwaay yi ñuy war banque yi ñuy rënk ka denc borom bi nee na dugg sama aljanna ma sotti la sama yërmandeeg samay xéewal dootuma la mere xayrum mimma yajmaun ibadallah isna ayaman maadudat dund nañ ay fan yu gàtt moo tax weeru koor ay fan yu néew la ñàkk na jom texee dina ku yàlla woorloo ngay langar langari ci mbedd yi naan duma woor damay joxe ndogu tey danañ mel ne yow moomu dana nu lekk dana nu naan waaye danañ la raw ndax danañ la raw jaamu yàlla ndax danañ la raw yàlla fóot ñu suñuy bakkaar yow nag dang nu raw ci yenu meru yàlla dang nu raw ci yenu ay bakkaar yoo xam ne ëllëg ci kanamu yàlla yaag ña la santoon nga bañ a woor di ngeen xëccoo ci kanamu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ndax santaane gën na rëy santaane yàlla ndax santaane gën na rëy santaane yàlla yàlla digle doomu aadama ne li yàlla digle bu ko kenn def ay doomu aadama yoo xam ne seytaane moo fi nekk seen dënn yi topp leen ba li yàlla santaane ñu bañ ko def bëccëgi weeru koor jeex na lan moo des mooy ay fan yu néew la woon ayyaaman maadudaat wa layaali mubaraka mu nekkoon siyaam wa qiyaam wa tilawati alquran wa bazl wa ihsan wa silatu rahim wa birr wa gufran wa it'amu taam wa zakat wa husn wa adab wa kalaam mbokk yi bëccëg yi lan la woon woor la woon bëccëg yi lan la woon taxaw bëccëg yi lan la woon jàng Qur'an bëccëg yi lan la woon yullit sa poos di joxe bëccëg yi lan la woon rafetal bëccëg yi lan la woon jokk mbokk bëccëg yi lan la woon mooy mbaax mokk bëccëg yi lan la woon jéggale ak yërmande bëccëg yi lan la woon di joxe lekk nit ñi lekk bëccëg yi lan la woon joxe sag sarax bëccëg yi lan la woon comportement yi rafet ak ay teggin ak ay wax yu am njëriñ wa kulluna yatma'u fi dir arrahman an nakuna yawma alqiyama ma'a alladhina anama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhada والصالحين وحسن أولئك رفيعا ما منهم في عيشة رادية في جنة عالية قطوفها دانية ويقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا عباد الله يتحقق هذا الفرح بتقوى الله عز وجل تقوى الله هي التي جعلت ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين mbokki jullit yi kontante gi ñu kontaan tey jëlewuñu ko fenn fudul la ñu ragaloon yàlla ragal yàlla googu ñu doon ut ci weeru koor gi borom bi tabaraka wa taala waxoon ñu ne ragal yàlla googu ngeen di am ragal yàlla googu tey moo ñu may mbokk yi ñu kontaan ragal yàlla googu nga xam ne moom la waa jooju amoon ban waay waa ji nga xam ne xale bu jigéen moo ko woowoon bu toll ci digg ndawam bu ta toll ci taaram bu wel bu mel na mu war a mel moom waa jooju xale bu jigéen boobu moo ko woo xale bu jigéen ba nga xam ne ci askan bu rëy la bokk ci yax bu rëy la bokk kenn gënu koo taaru mu daa di wéet ak benn waay ne ko jox naa la sama bopp waa ji daan ne ko inni axaafu allaha rabbal alamin man dama ragal yàlla fa kaanat alsamara hiya anna hadha sinf min annas min sabaati alladina yuzilluhum allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh mbokk yi waa jooju tey ab sénégalais dana dégg ñu ne benn xale bu góor a ngi nii bu toll ci digg ndawam ab xale bu jigéen bu taaru toll ci ay atam toll ci taaram bokk ci yax bu rëy bokk ci askan bu mag daa di wéet ak xale bu góor boobu ne ko jox naa la sama bopp tey ab sénégalais soo ko waxee loolu mu ne kooku seer la kooku dootul avancé booy kooku dootul tekki booy kooku dootul dund booy kooku naakal belende la kooku xamul nu mu demee allahu akbar ndeke kii moo xam nu mu demee waa ji lii mu ne yàlla lii mu wax ndaw si ne ko inni axaafullah xam ngeen lan la ko yàlla fay yàlla ne ko coppet boole ko ci juróom-ñaari nit ñi nga xam ne bis bu du yàlla wàccee jant bi mu tiim ñëpp seen yuur yi bax waa jooju du fekke tàngaayu jant bi waa jooju fan la bokk yàlla nga ko keppaaral ci suufu arsh moo juróom ñaar ñooñu nga xam ne naaj du leen laal ci keppaaru yàlla la ñuy nekk ila an yarisa allahu al arda wa man alayha sabatun yuzilluhum allah tahta zill arshi yawma la zilla illa zillu ma anbiyaihi wa asfiyaihi juróom ñaar ñooñu waa ji nga xam ne xale bu jigéen bi da koo poñe woo ko mu ne inni axaafu allah dana bokk ci kenn ñooñu nga xam ne yàlla dina ko keppaaral keppaaru arsh insha allah mbokk yi huna waqfa taxawaay bu ñu war a taxaw mu ngi fii ma man yazhab huna wa hunaak taxawaay bu ñu war a taxaw seetlu jàngaat dars bi càmbaraat ko ci ñooñu nga xam ne ñu ngi ci tey ci caaxaan ñoo ngi ci njaaloo ñoo ngi ci seetaan film porno weeru kooru daaw amaana mbokk boobu mën na julli si allahu alam benn waay nee na ma dama woor ba ngoon jot ma dugg clando ca kaas ba bi ma duggee clando maa ngi fekk benn jigéen mu ngi toog ci ruq bi ma toog ci digg bi beneen xale bu jigéen ñëw toog sama wet kon benn góor la boo xam ne ñaari xale yu jigéen a ko kepp li mu njëkk a def danger bi mooy loolu mu ne ma toog ndeke xale yu jigéen yi dañoo sol lu bon xoolal woor ba ngoon ba 5 heures 5 heures nee na ma wàcc liggéey di ñëw sama kër nee na ma topp seen tànk yi di xool rek ma topp seen tànk yi di xool rek ba sama tubéy tooy loolu daaw lañ ma ko laajoon xam ngeen ren ban laaj lañ ma laaj benn waaye moom ma woo téléphone amaana mun na julli si allahu alam nee na ma sama benn xarit dafa woor ba ngoon mu deog di seetaan film porno mu koy xool ba caag rek tubéyam tooy kooku lan la war a def allahu akbar moo mbokk julit yi moo tax taxawaay am na fii ci xale bu góor bi jigéen poñe ne ko ñëwal jox naa la sama bopp mu ne ko inni axaafu allah rabbal alamin est ce que ku war ba ngoon ay jigéen dinañ ko képp ci oto est ce que ku war ba ngoon war na seetaan film porno mu ne moo tax taxawaay ya ngi nii boo xam ne ila man yazabu huna wa hunak waqfa ma man yastaximu ajhiza wa qanawat فيما حرم الرب الأرض والسماء فإن الله لا تخفى عليه خافية فلنتق الله مبكينا لن رجل يالله رجل يالله جوجو موم موتخ خالي بو جيجين با جاخاسول سوما دافو سي ندخ ci jamono omar am na jaaykatu soow bu doon rax soow mi doom ji d'accordu ci fajar gu jotee rek dana jël ndox sotti ci soow mi doom ji naan ko yaay bàyyi li ngay def xanaa yëgoo ne bu la Omar gisul Omar a ngi fi su la Omar yëgee musiba dina am ci yow yaay yaa ngi naan ko doom Omar nekk fi te Omar gisuñu xale baa ngi naan ko yaay in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana soo moomu mbokk yi ragal yàlla moo tax kenn raxu ko mbokk julit yi yataxaqaq zalika al farax kontante googu dina nekk kan liman salaka abwaab al xayr al mawsul ila al janna wal muhaqiq lil farax wa surur fi dunya wal axira man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mumin falanuxayiyannahu xayatan tayiban walinajziyannahum axsanahum bi axsani ma kaanu yacmaluun mbokk yi ci yàlla daaw waxtu wi ñu ngi fii yàlla mayaat nu nu nekkaat fi waaye mbokk yi ñi ci biir ak ñi ci biti ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñi ci mbedd meeg ci baas bi maa ngi leen di laaj ndax ñëpp ñu ñëwoon fii daaw ñoom ñëpp teew nañ dama bëgg ñëpp tontu ñi ci biir kër gi góor ak jigéen ñi ci biti ñi ci kaw jàkka ji ñi ci biir ñi ci baas beeg ñi ci mbedd yi laaj bu ma leen laaj ndax ñi teewoon fii korité daaw ñëpp teew nañ ñi absenté fu ñu nekk ñi absenté fu ñu nekk ñi absenté ku leen tee ku leen tere teew fii ku leen tere teew fii lu tax tey gàdduñu seen sijaada ñëw ànd ak nun ku nekk bàyyil xel loolu woor nañ weer wi ndax dinañ ko woor déwén est-ce que man mii taxaw fii ren ji dinaa fi taxaw dina déwén dinaa taxaw fii est-ce que bii du mooy sama weeru koor bu mujj est-ce que wóor na ku nekk bàyyil xel loolu am na nun fi nekkaloon tey noonu dem nañ ñun tey noo ngi fii noo ngi xëy suba tey sangu jëndal nañ suñuy njaboot yére jëndal suñu bopp am na ñun fi nekkaloon tey ñoom seeni njaboot ñu ngi ci biir kër yi mënuñoo ñëw julli si seen soxna yaa ngi dangar dangari ndax gisuñu ku leen taxawu ndax ñun tey dañuy julli ñibbi rek bàyyi ñooñu ñuy taxawaalu ndax ñun dañuy solu bàyyi ñooñu ci solu ndax ñun dañuy ñibbi lekk suñuy ginaar bàyyi ñooñu duñu lekk ndax loolu mooy ànd bu rafet ndax mbokk yi loolu mooy ànd ci ay jullit yi doon ànd yonent bi ne laysa minna man baata sabaan wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku denc sa dépasse suba sa mbokk julit nekk ci sa wet fanaanoo xiif seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa génn bi su julli nit ñi julli ba pare topp mbedd yi di ñibbi muhammad seen benn xale xale yépp di faw benn xale fawul ma nga toog ma nga tilim ci yaram ak yéreem xale yaa ngay cëppi cëppi yonent bi ñëw ba ci xale bi ne ko lu la teree foo comme say moroom lan moo la teree bég tey bisu mbégte la lu tax bégoo mu ne ko sama ndey ak sama baay dañoo gaañu bàyyi wuñ ma kenn sama yaay lañ ma bàyyee woon benn góor takk na ko alal ji ñu sunu baay bàyyee woon benn waay lekk na ko ba mu jeex takk moo tax bisu julli tey mënumaa solu mënumaa sangu ndax aw ma lenn lu ma def yonent bi jàpp ci loxo bi xale bi jóg taxaw yonent bi ne ko ndax bëgg nga Seydina Ali nekk sa mag bu góor mu ne waaw waaw ndax bëgg nga Fatima nekk sa sœur mu ne waaw waaw ndax bëgg nga Aïcha nekk sa yaay mu ne waaw ndax bëgg nga Muhammad nekk sa baay mu ne wallahi bëgg naa ko yonent bi yóbbu ko kër ga ne sang leen ko utal leen ko mu lekk jox leen ko mu solu xale bi génn di foo ànd ak ay moroomam ba mu am ay at yonent bi génn àdduna xale yi delluwaat ci mbedd yi di foo bi su julli xale bi toog daal di ñëkk ñu ñëw ne ko lan la mu ne leen dama ñàkk bàyyi yonent bee ma yorante yonent bi faatu na tey kon mbokk yi ñu nit lan moo nu war ci suñu mbokk yi nekkaloon fii maa ngi sàkku képp ku ñëw ci jàkk ji su fekkee sa poos bi ngay ñëw am nga loo ci def nga coppati ci indi ko ci jàkk ji buñ jullee ba pare mbokk yi ñu jéem a dajale mbokk yooyu ñu nekkoon fii ak miskin yeeg ñi néew doole séddale leen ko ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala yéen mbokk yooyu ci tabax boobu jullee fa suñu xeex weeru koor bi yëpp lii la woon mooy waajooju ñëw bëgg a tabax fii xool leen fii ni mu xatee benn waay ñëw bugg fee tabax kër ne lii moom moo ko moom moom lañ demal tribunal dem ak moom police dem ak moom préfecture dem ak moom mairie dem ak moom sous préfet waaye ñoo ngi yaakaar suñu borom subhanahu wa taala dinañu may ndam ci kanam moo tax yéen ñu julli si yépp ñu ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal nu ba terrain bii nekk terrain jàkka ji bu leen ñaan waa ji dara dal ko nag ñaanal leen ko rek yàlla may ko feneen mu bàyyi noog lii ngir yàlla pourtant wax nañ ko ko de kaa ñu jox la Kër Massar titre foncier nga jël ko nga bàyyi li mu ne maa bañ xaw ma lu tax julli ci Sénégal bëgguñu ay tiyaaba benn jàkka dañ koy tabax jàkka ji xat waa jàkka ji def délégation ñëw ci borom kër gi dend ak jàkka ji ñu ne ko sawaay ñun de dañoo def délégation doon la laaj jumaa ji dañ ko bëgg a yokk mu ne loolu de baax na ñu ne ko waaye sa kër gi moo tax jumaa ji du yaatu ñu bëgg nga wax rek nuñ koy jaayee rek nga jaay ñu ko loo koy jaayee rek waxal mu ne tekk ba ci yàgg mu ne benn kër bi de la ma yàlla may ak ñaari néegu ardoise yi ci nekk waaye li ma leen di ñaan rek mooy ngeen may ma ma luwe ji ma joxe ko fi sabilillah may leen ma rek ma uti fu ma luwe ci biir mbooloo mi benn waay ne bëreet ne ko may naa la R plus 1 ci biir mbooloo mi benn waay ne bëreet ne ko giñ naa ci yàlla may naa la R plus 1 doo luwe ji nañ dem ma wan la fu mu nekk nga toxu waaw ana ñooñu ana ñooñu mbokk yi xanaa ñooñu gisuñu waa ji ñu wax ak moom ay mbokkam téye ko fii ja néegu yàlla la dañu bëgg jaamu yàlla fii kooku xanaa kii déggul kooku yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده wa baada al mawti jannatan wa naiman wa mulkan kabira mbokk yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara ñoo ngi leen di baalu àq bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax yéen ñëpp ñoo ngi sàkku ci yéen kenn ku nekk ñi ci biir ak ñi ci biti ci kaw ak ci suuf ñi ci baaseeg ñi ci kaw ñi ci tali bi yéen ñëpp mbokk yi maa ngi leen di baalu àq di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla boole baal allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi lalamin innaka hamidun majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين